ci ci ci génnam bu mujj bi ci conseil des ministres. est-ce que dina yomb ak lii nga xam ni tëgg nañ ko. ci rapport bi xam nga bu fekkee ni euh, dana yomb. dee leen sànq ñun ñëpp ñun manko d'accord ni Sénégal moo ñor wax sànq. Mhm. dafa am loo xam ne moo ko moom ak loo xam ne moomu ko moom Sénégalais la comme ñëpp. moomu lépp ndax Sénégal la waaye président de la République la il faut que les gens comprennent mooy am jot joxe décret moo am sañ-sañu abrogé ko kenn mënu ci daal li ci des. non sañ moo tax ma ne. Ah moo tax war a xaar. ba ka nga xam mooy mooy dogal. dogal ñoom ko ko cour suprême lañu jëm. c'est qu'on ne sait pas à partir de quel moment. un président de la république oublie. que c'est le peuple souverain qui lui a confié ce sañ-sañ là. mais c'est parce que c'est parce qu'il a confié que moo qu'il prend toute sa responsabilité mon frère. c'est parce que le peuple lui a confié qu'il est qu'il a toute sa responsabilité et son devoir de de faire que le Sénégal marche. La gendarmerie occuper ah oui, mais quand les gens refusent de de refusent que les gens payent, que les clients votent, mais il va falloir qu'on les fasse sortir. Il faut quand même il faut la cravache quelquefois. Ça, c'est ce qu'il faut. Par contre, quand on parlait tantôt du du du du comité de de de, de, euh, de la commission de d'enquête, je n'ai jamais dit qu'ils avaient raison j'ai dit. amuñu preuve qu'ils ont évoqué. non ils n'ont pas de preuve. voilà loolu nga wax. c'est ce que j'ai dit. il oui. y a pas de preuve pour le moment. Mm -hmm. pour le moment pour le moment. parce que enquête bi dax commencé gul. war na commencé c'est dans six mois xëy na comme dit Montey. et c'est destiné au président de l'Assemblée. amuñu preuve pour le moment euh, moi je suppose qu'ils n'ont pas de preuve parce que sinon. ak bi jeex na non non mais justement. kon nga ne ko pour le moment. pour le moment kay. gisul preuve pour le moment. pour le moment gisul ah, donc gis nga amul. ñu amul sax ci lu leer. waaw mais comme génneeku ko fenn bon je veux dire xëy na am nañu preuve waaye preuve génneeku mais ce qui est certain am na loo xam ne évoqué nañ ko par rapport ak la commission. Euh, la commission la, le conseil constitutionnel parlant du juge Cheikh Tidiane Koulibaly ça moi personnellement je peux mettre mon bras le Coran que li ñu wax amul ndax man j'ai connu Cheikh Tidiane Koulibaly par Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo ko présenté en 94 il a eu des problèmes c'est euh, Cheikh Tidiane Koulibaly qui était président du conseil de, de, de, de la chambre d'accusation moo ko libéré mais Abdoulaye Wade naw nommé ko directeur de cabinet man ci laa xamee Cheikh Tidiane Coulibaly mu wax ci lu bëri parce que je faisais partie des cadres du parti démocratique sénégalais avec Macky Sall avec beaucoup de gens. Euh, au niveau déedéet du avec je je parle j'ai fait comme ça parce que j'ai pensé à Souleymane Souleymane Ndéné j'ai pas j'ai pensé à Ablaye Diatta qui sont vos amis donc ñooñu ñoo fa nekkoon moom mu xam loo ñu sur il nous a fait aimer Cheikh Cheikh Tidiane Coulibaly par la suite. ma ma Mama Dior dem ñëw bàyyiwaat ko fa def ko directeur de cabinet il a fait son tout son cursus tout son toute sa carrière mosul am benn problème ku mel noonu ma xam ñi ko xam ñëpp d'accord manko c'est un homme intègre xaarul Latif pour nekk magistrat xaarul Latif pour sa compétence ñëpp manko ci Sénégal ni c'est un compétent. Ah, li mu am. d'accord daf ko jara am li nga li nga wax yëpp. waaw am na solo. je tenais à dire que c'est un homme intègre que je connais. <coughs> et je connais des gens qui le connaissent bien et qui l'ont confirmé. kon je tenais à dire ça. au PDS. non à tout le monde. dans un premier temps notamment au ñu continuer xool bu fekkee nag indi nañu ay preuves. Cheikh Tidiane Coulibaly am na nangam. def na fi nangam. waaye man jusqu'à preuve du contraire par rapport à ce que je sais par rapport à ce que Ablaye Wade nous a appris de lui c'est un homme intègre xaarul Latif Latif dimbaliw ko wanewul lenn loo xam ni dana mën tax tax man am na problème ak Latif lui il était président de la président de de de d'accusation de la chambre d'accusation mais il n'a pas levé le petit doigt Ah, il faut que les gens le comprennent aussi dites dëgg boo gisee nen ni nen a ngi ko Tidiane Coulibaly ku baax la ku ju jub la ku compétent la kenn na tablawul xam-xam ma jaar ci loolu par contre conseil constitutionnel mon frère il va falloir que ñun ñëpp ñu d'accord ni am nañu ay loi am nañu ay institution nañ leen respecté accepté li ñuy wax. nañ xaar nga koy wax. ñun ñëpp loolu la ñu wax loolu Macky Sall di. noonu la ñuy xaar non non tu vous n'avez pas vous n'avez pas compris par rapport à la la proposition de loi. Euh. bi ñuy wax ba ñu wax jox ni le 15 décembre. non du dem conseil constitutionnel. du dem conseil constitutionnel parce que c'est pas une loi organique. loi organique rek mooy dem conseil constitutionnel. non y' a des gens attends y' a des gens suñ mon frère y' a des gens qui vont faire des recours. waaw waaw je donc bu ñu xaar bu fekkee amul recours. huit jours on va promulguer ça. fii six jours six jours. six jours six jours. ñu recours. mais ñu promulgué ko ñu daal di continuer daal dem dem di di. su amee recours. su amee recours rek ñu xaar li co li conseil constitutionnel wax ñun ñëpp ñu man ko ci të tënku ci. bu ne nañ teg loi bi fële. ñun dañuy tënku toujours ci li conseil wax c'est-à-dire conseil nee na vingt candidats yi ñooy jongante ji. tënku woon nañ ci tënkuwoon nañ lu bees lii laa wax mu am mu am ñu jógee lu bees lii laa wax. on va reprendre les les processus <laughs> électoral on va reprendre le processus électoral. léeg-léeg daal ñu wóolu conseil léeg-léeg ñu ko wóolu bien sûr c'est mais président être candidat bah, ou président n'est pas une fin en soi non mais justement il li ma laaj li ma laaj euh, Chérif rek laa laaj Théodore euh, mooy yow aussi am nga sa euh, gis ngeen disposition yi nga xam ne nekk na seen kanam moom kan ma candidat léegi bon après dina la ko wax moom ah, alors Maïmouna ndax da ngeen di campagne wala da ngeen di jël beneen beneen xeetu xeex maanaam attaqué ko ak recours bi nga xam ni peut-être am ngeen lu mat fukk ak juróom-ñaari député yu ko mën a def ci conseil constitutionnel. ñoom rek ko fa mën a def d'ailleurs. voilà donc euh, xam nga Pape ngeen mhm. conseil constitutionnel dafa wax ne sama candidat nga dama am choix numéro un. waaw muy euh, le candidat Ousmane Sonko. Mhm. nekk euh, chef de l'opposition ñëpp nangu ko. déedéet ah. Idrissa <laughs> d'espoir et d'espérance ci population sénégalaise ñu àtte ko pertul droit civique am ak politique am comme nuñ ko defee woon suñuy frère en 2019 illégalement dossier bi jeexagul ñu ràjjee ko injustement mu dem Ziguinchor justice jox ko raison administration sous la volonté du ministre de l'intérieur bañ a exécuter décision mu delluwaat fii Dakar tribunal d'instance ñu joxaat ko dëkk justice ne amuñu woon droit génnee ko ci liste yi mais fort de tout ça mu déposé dossier am conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne ko doo bokk. bokkul. conseil constitutionnel génnee ko mu def recours indi ay preuves pour wane ni administration moom moo bañ a jox sama fiche administration dont des partisans de la le directeur de CDC moom moo bañ jox sama quittance alors que jox na ma attestation ak leneen ak leneen. conseil constitutionnel ne ko sa dossier fee laa ko tegee mais mu xam ne lui il n'est pas le Sénégal il aime le Sénégal mais moom du Sénégal mhm. c'est un Sénégalais parmi les 18 millions donc day il faut que la, la vie suive son cours ni ko Ablaye Wade defee woon 2019 2019 dañu écarté Karim Wade injustement Ablaye Wade ñëw war dem élection mënul campagne mais dafa boycotté parce que Ablaye Wade xam na ni l'élection présidentielle mais ce n'est pas une affaire de politique mais réveillons-nous askan wi moo ko moom askanu Sénégal moom mooy tànn kan moo koy jiite kan mooy chef suprême des armées ah. kan lay dénk boppam dénk ko frontière am dénk ko souveraineté dénk ko sécurité am dénk ko signature am ah. du mbiru Macky Sall wala Maïmouna Bousso wala Karim Wade wala keneen Ablaye Wade dafa xam loolu moo tax bokkul élection mu boycotté Macky Sall xam naqarlu ko ñun ñëpp. parce que c' était illégal. léegi lan ngeen di def. c' était illégal teguwul fenn kenn mënul wax man mënuma toog ne parti démocratique sénégalais waxuñu def recours. entre def recours parce que dañ la tooñ ak def recours nañu toxal élection je suis désolé du benn parce que lii yow da ne da ngay réparer sa injustice yow en causant de l' injustice à 18 millions de sénégalais njëkk foofu la problème bi nekk mais du càgginu dañu ne amu leen droit. kaas seen ay seen ay doléance mais est-ce que am ngeen droit cautionner président Macky Sall mu xañ 18 millions de Sénégalais ñu tànn seen njiit violer sunu constitution violer la volonté populaire loolu amul fu ñu ko bind parce que élection présidentielle askan wi moom moo ko moom acteur politique yi minorité la ñu ci sénégalais yi ñuy politique motuñu sax un million tenir en otage un peuple un pays une destinée c'est ça qui est aberrant loolu la képp ku am bëgg démocratie mënuloo ko def maintenant démocratie wax na wax nañ ko léegi lan la ñuy def ñun on aspire à un pays démocratique on continue le combat parce que la démocratie mais elle se gagne sur des combats ban xeetu combat sunu sunu ah. sunu sunu papa jooju wan nañu ko. ban xeetu combat. 26 ans la opposé wu di xeex ban xeetu combat. Ah. combat yi weesuwul lu mu la wax léegi mooy déjà les recours. waaw candidat yi dinañ ko def. très bien groupe parlementaire dañ ko defal ndànk de defal ndànk rek parce que loolu dafa yomb trop. loolu dafa yomb trop parce que nag booy defee recours da nga koy def ak koo xam ne xam nga xam nga koo xam ne danaan dana safuma bu ngeen defee recours tamit man ngeen fii fekk. doxal leen je reste gis nga yaat a ko combats. quel soit quel que soit lu mën a am. entendez-vous waaw y a problème mën na ma ci yokkal ñett peut-être am na keneen ku toog këram dina ni ñeent. parce que stratégie de combat yi bëri na. Ah, ah. mais dama la bëgg a xamal dara. Sénégal lii ñu am tey. muy démocratie amuñu ko ci topp ay institutions. déedéet ci ay refus ci ay combats. Ah. ci ay résistance moom lañ ko amee. Ablaye Wade bu ne woon day bokk ñu ne ko doo am parti politique xeexul kon tey démocratie du am Sénégal. dafa taxaw xeex ñeneen ak ñeneen xeex 2012. Abdoulaye Wade li mu bëggoon def président Macky Sall bu taxawul woon riposte xeex du fi amee lii leneen ak leneen mais ce pays s'est construit sur des luttes de toutes les classes nag les gens vont s'organiser pour lutter te gis nga non seulement on va lutter parce que il faut arrêter aussi seen yooyu ngeen di def noonu parce que c'est pas parce les gens disent qu'on va combattre que les gens vont se faire arrêter il faut arrêter ça parce que sànq wax naa mu ne gis ngeen ni la ñuy wax bu ñu waxee ñu jàppaleen mais il faut ngeen arrêter mais kenn du ñu jël si ci dëkk bi la ñu dëkk ay droit on est des citoyens sénégalais on a un président qui est légitime jusqu'au 2 avril à partir du 2 avril on va lui opposer une résistance donc vous n'attendez le conseil on ne va plus le reconnaître comme président les gens vont se mobiliser pour le combattre parce que xam nga lan la ñi fi xeexoon ba tey gënuñu ñu. moom ñi fi xeexoon ba Sénégal taxaw gënuñu ñu. gis nga Pape Ngagne hmm? nañu respecté mémoire u Sénégal. gis nga Lat Dior Ngoné Latyr bi muy xeex ay millions de sénégalais ñoo fi nekkoon est-ce que ñooñu ñëpp dañoo xam seen tur hmm. Lat Dior ci jàpp parce que dafa taxaw taxawaayam hmm. gis nga Albouri bi muy bañ ay millions de sénégalais ñoo nekkoon est-ce que def nañu liste ne la Albouri nii ak nii Cheikhul Khadim mii rek sunu maam ju baax ji bi muy résister keroog mais y avait d'autres personnes qui étaient là qui pas résisté mais taxawaayam a tax ñu fàttaliku ko ñu nit suñu taxawaay kenn ci ñun ku ne dafa am impact dans l'histoire nous serons debout face à vous au président Macky Sall à sa volonté de confisquer ah, suñu suñu pouvoir ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg parce que nag nangu ko mooy tout simplement toroxal suñu démb ak suñu barki démb parce que gis nga Thierno Souleymane Baal ba muy taxaw Fuuta ñu am xam-xam ñoo fa nekkoon ak moom mais taxawaayam ak jaar-jaaram ak refus am moo waral ñu di ko jàngale ba tey ci suñu école yi di ko jàngale suñu histoire ku nangu nag parce que da am copain parce que da nga am relation parce que da nga am intérêt lii yëpp lu ko waral c'est le pétrole pétrole bi gaz moo waral lii yëpp ah on se dise la vérité yaa ngi wax sama candidat nee na kuy sama candidat Bassirou Diomaye Faye mooy sama candidat parce que nous nous ne faisons pas de la présidence une une chose personnelle dañu jàpp ni bu doon woon Bassirou Diomaye bu doon keneen la itam ne on continue parce que on doit permettre aux Sénégalais de choisir. d'accord maintenant Bassirou Diomaye moom bëggu ko écarter. parce que nag tout le problème c'est ça. il faut aussi oser dire la vérité. même choisi. si elle est amère. Bassirou Diomaye fay ne faisait pas partie du du du du plan warul woon bokk parce que ku écarté Bassirou euh, Ousmane Sonko mais xam nga ni doo fa bàyyi Bassirou Diomaye ndax Bassirou Diomaye mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye. c'était dans le projet <laughs> Pastef waru woon bokk opposition bi ñu bokk ñu waruñu woon am candidat c'était ça qui était prévu maintenant les choses ont changé conseil constitutionnel n'a pas suivi même si man sama bopp j'ai des choses à leur dire je trouve qu'ils ont pas été courageux je trouve que lii yëpp ñuy dund nii mënoon nañ ñu ko euh, abréger parce qu'il devait avoir le courage de dire le droit parce que empêcher Ousmane Sonko de participer ce n'est pas le droit. D'accord. Merci donc bàyyi nañu Bassirou mu dem. arrangé wul Macky parce que ah. gis nañu. Mhm. Sénégalais au lieu que ñu ne non bu dul Sonko dañuy boycotter comme ni ñu ko defee woon en 2019 ak yeneen année ñu ne Bassirou mooy Sonko mu ne kon mbir mi du arrangé wu. il a vu aussi dans ses sondages que candidat am day perte. gis nga monsieur Wade nga baal ma ñàkk respecté Sénégalais weesuwul. nga téye sa premier ministre garder ko comme premier ministre alors que dañ ko accusé d'avoir corrompu. li yëpp li ko waral mooy on a accusé Amadou Ba d'avoir corrompu un juge qu'il dit être intègre. ah non mais n'empêche que yow jëlee nga ci ay conséquences. c'est juge dàq ay élections. def la neex ba pare yaa ngi continuer di garder ce ce premier ministre. alors mais il faut être cohérent. non seulement alors excusez-moi. ba baal leen xam naa nag ci tur bu mujj bi la ñuy dem nag parce que bu ñu toppee waxtaan bi yow est-ce que du Thiès ngay ñibbi sax. waaw mën na compliqué léegi dañuy dañuy dem rek ci tàggoo yi nag. s'il vous plaît ak mot de la fin yi. non mais ci ngay mën nga ko boole mën nga ko ci boole waale. mën nga ko ci boole waale les électeurs dont dont elle parle. SeneInfo International. SeneInfo International.